Fallou Sidaat Faye bu nu huug xoolal Joal la muy jeex moo Joal loo réer de loo denc foofu Joal Joal yooyu xewi na Joal yooyu mag ñaa ko doon def nee jeex na tubb na tànk ba nee na. Ah. Joal nee na tubb na tànk <laughs> Joal na ko ba gis ko seet na lim doon seet ba gis ko. sànni na ko sànni kon eh, xel nangu na ko. waaw waaw ko. moom ñoom ñaar combat la. dana ni daan de. ku daan combat la. xoolal xoolal Boy na ko. Boy Faye moom. Boy Faye moom. ah Boy Faye. dégg Alaaji Moustapha ngi leen di laaj. xoolal Joal fi mu taxaw. Sidaat Faye bu ndufuk. ak Joal mi mi mag. arbitre bi sifflé na Seck oh. fi mu taxaw. ñoom ñaar fi mu taxaw. dand na ko. Joal dand na ko. Sidaat Faye taxaw moom it yëkkati ñaari loxoom. luy xew Alaaji Moustapha. ay Seck dañuy xool rek ba xam ne waa ne di mu jékki. Fallou Fallou bu la doon ci li ma jàmm la dem na. Joal dem na. Sidaat dugal na koos. loolu da xanaa mooy taxawal taxawal waaw Alaaji Moustapha man na si euh, kii nu mu tudd. daal kum daan la laay xool sànq ba waaye dama ko fàtte. ah en tout daal la def na lu nekk ci mbapat. fàttali kum daan. door na Sidaat Sidaat dugal gos moom itam. waaw oh. moo bot sek. daa jot ci géew bi moom moom moom moom moom dëgg la. Sida da ko fi mujj ndax bëri door na góos waaw door na góos waaye mbër moom entraînement la moom moom joie waaw saa yu sumee ko nga xam ne am na entraînement xolal Sida fay na Sida da nga taxaw jàkkaarloog ñoom dem na jàpp na jàppante na ñoom ñaar Zawal jàpp na ndengeñ Zawal nag Alaaji Moussa mbër mu amee tànk nu ngoo entraînement ay tànk la non boo ko fekkee comme ni nga wax léegi entraînement muy entraîné non da nga naan kii day xaru Sida da nga koy nga jàppante Zawal a fayu Zawal <laughs> Sida fay Sida dafa dafa bal Joal Ndengeñ ñoom ñaar Sidaat dafa bal Joal Ndengeñ lu wande ndi mu jëkk ba dem Alaaji Moustapha Joal moo nu boot sekk ngemboo ngembal vaxili Sidaat da nga koy tooñ tooñ sew ci suuf Sidaat jàkkaarloo ak ñun di ko tooñ ci suuf mm. eh eh Joal daa dara ne mu gaañ la Joal faaw nga appliqué Joal jëmala xar géppeñ Joal faaw nga appliqué di wala sonal xëcc na ko eh. tuur na ko lu xew ñoom ñaar rëpp nañu jëwaat rëpp nañu Joal adul ah, ah, atano ah, nan bëri ci géew bi ñaar ñi nan ñëw bëri ci géew bi ah ah eh Joal mi dëggal na boppam tey de dëggal na boppam mais combat bi ah Mara Cheikh moom daa mel Thiès ju góoki mbërëm ah Mara <laughs> Cheikh lu Thiès mën naa ne jig na ma ak samay mbër waaye keroog ki nga xamante ni moom mooy Ama 2 delloo nañ ko victoire bi ginnaaw recours te it gis nañ ni caatu Ama def na benn action jërë jàq teg li nga xamante ni moom mooy bésëb si bi sànq maa ngi wax ma ni set chutes yi am ci làmb est-ce que arbitre yi ñu ci bëri xam nañ ko ndax biceps jëm épaule chute la waaye nag euh, bëre waat nañ cere jaax daan ko jël bu rëy. ne dolli daal bu fekkee përëg moom jël na. ca eh laa ilaaha ay waay ay waay Joal loolu bu la ay waay Joal li nga nekk loolu doy Sidaat mi li mu bëgg a def Joal ñaaw na de. Sidaat génne ko épercule droite. ma ngay dugal épercule ay ah, Joal. Sidaat fay bu ndufuk ak Joal mi mag bu Cees moo bu bëgg sa Joal mi mag bu bëgg sa waajur Sidaat Faye bu Ndufëg ndaysaan sàkk ñaari xale yi dañuy gëj géew nag. moo tax loolu baaxul ci ñoom. baax boo xoolee Sidaat moo mujj ci géew bi ndax moom jeex jàmm la mujjee laaleel mais Joal xaw na gëj a te ñoom ñaar tamit aussi rawantiwun dara ci làmb ndax boo xoolee mbapatandoo nañu duggandoo tamit aussi arène moo tax combat bi ki ko indi tamit vraiment indi na combat bu neex. ñoom ñaar kon ñu ngi ko gërëmee le promoteur Faye production. tey ji ca stade Maniang Soumaré bu Thiès dëggal man da kooku xam nga damay daaneel. Ah, waay nee naa ko nee la bu waayee mu neex sekk. doon na ko papa Thioune Ndiaye mooy papaam yàlla na ko yàlla woyofal suuf ci kawam. tag tagg ko tub Seydina Mohamed ba dem na. dëgg la sekk ndaanan nee nga setum na ko jéeri la kon su waayee nii la war a mën mel. maamam na ko jëre Seck moo daan way ensemble lutte traditionnel deug le sek dal dan taxaw no lu way don mu deugal dan way wayu ciosan ak ado lu way don mu deugal motax mom moom bu tegeel dëndam Thiès kenn du ko sëmpi moom fànn ko. dëgg la Seck daan gis nga ko limi doxal way wu nek xamne fim koy waye ñooy bëre xam na la way. bu ni tous xam lam wara may suñu duggu see ci làmb kaar macha allah xam na la way bu dee mbapat ak arène xam lam wara way. ndeysaan dégg nga waay wane na bëri leen ba bëri baaxut góor lool. Ah. yenn saa yi mu yëkkati mbaari fayaat ma. yenn saa yi mu yëkkati lakk dem na Kóone. yenn saa yi mu yëkkati asimlaa yi. Ah. yenn saa yi mu bëree eh, yëkkati laale leen laale baaxu góor lool. ndaanaan laa laaj Moustapha. fekk xale yi di laale xam nga loolu moom moo ànd ak moo ànd ak waay bëri bi. ña nga ca ñoom ñaar jàppante nañu xolal xolal. Abdoulaye Ndiaye cosaan. Abdoulaye <laughs> Ndiaye militaire de moom. Ah, ah Mara a xaw ndax yàlla. xale yi war nañoo mën a wéyale ki nga xamante ni moom moo ngem moo ngemul la ko. Eh, lii de kenn xamul lu mu tudd. bëcc da doon bëcc. souvent da doon bëcc. ma daal daw génn laa amul. waaw bon jël dara jël laa amul. Eh, ñoom ñaar. Joal ca xabalam boobu ci biir la ko waroon a jéem a waaw te dafa yeex. waaw mais soo ba dëgër xam ne kii dafa bëgg a génn. waaw ah. déglu ko rek saa yu soña xale boppam pour nga war a kootaale rek bu max mu dem bu max mu dem mais bàyyi ba ñu génn deuxième saako yi jëm ca biti nga soog a dugal jaxabal loolu da ngay fournir énergie rek te doo Joal mi mag ak Sidaat Faye a ngi dóor Joal mi mag a ngi dóor waaw fay yu la ma waxoon rek waaw na ko foofu eh jàpp na nag eh Sidaat dellu si na ko rasuno xoolal waaw xam nga Joal ay action day yeex taxaw na ko yëg na ko Joal gàlli na taxaw bañ na caxabal na ko Joal coxabal na ko Sidaat bañ. Sidaat ah, da nga tëgg mboot mu ñëwul. ah Joal surux Joal surux na ko. Joal suruxal Joal na ndax yàlla. Joal suruxal nga mbokk yàlla. Ah, ay ay Samba ma ngay doxali. ay ah, Joal mi mag daan na ngay doxali. Joal mi mag daan na. Joal mi mag daan na. Joal. fay naa la. waxoon nga ko def nga ko. non dama am doole xale laa lii mooy sama rakk barki Serigne Touba lii moo topp ci man barki Xaadimu Rasul lamb daam nu mu demee ñii waruma bëreeg ñoom deux laa toog bëreew ma yow xam nga ni man damay liggéey man bokkuma ak mbër yi nga xamante ne dañuy dem di ñaanaato damay ralli di fayeeku weer barki Serigne Touba lamb ji damaa jaral li ma ci def ëpp na cent cinquante mille barki Serigne Touba laajal sama rakk yi lamb gi faaw ma daan ko. mais dañoo gis à tout moment da di ko wóor lan dama ko ëpp doole gone laa dama ko ëpp doole man xam naa ni sonn na ni muy xëxëte laa xam ni sonn na door fii ba suba duma daw man yow mënoo maa xam der dëgg man la xola benn. damay sant waa Kujaajeen Jaxaaw Siin Baatar Pambal Fatick Ñoojoor Fimela Marlooj amul fu ma demut barki Xaadimu Rasuul ma yaakaar dama dem leb xaalis kii mënut a woon a wax ba duma ma daan mu tëgg la mboot nga mbaar sant suñu waa koñ bu baax a baax sant sama mag bi yor restaurant bi see mayte ma sant Dumbuya Dumbuya sonn na ci combat bi wóor na Serigne Touba daa sonn ci man këram laay ne barki yàlla mu tegal ma mu may jox ginaar may lekk taalal ma ventilo war barki Serigne Touba may nelaw ba bu ma neex mu pare yee ma ni ma demal entraînement kooku nit dong ko man maa koy sant bu baax di ko gërëm barki Serigne Touba ku daan fii ku daan ñaar ku daan boo jaxaaw ak kii ku daan soxla naa la. nga ni bare naa pour bëreeg yow damay teg dënnu.